ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci rëdd bi ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax tey moom ku organisé ko pour Pastef sama wooyu mooy ñëw ndax sama yaram mooy ñëw waaye Pastef bu ñu organisé dara mooy toog sama bopp mu daal kon ñu ngi gërëm bu baax a baax waa CIDES département Mbacké wax li seen laaj naan lu ñëpp xam loolu yow référence ngeen ci parti bi nekk ci parti bi yëpp war na doon muy waa Moussine muy waa coordination départementale muy waa Mawla bii yéen soxna Seck bokk ñëpp war nañoo war initiative bi ngeen def ndax parti animation rek moo ko war a taxaw kon circonstance bi ngeen ko defee yombul ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm di bi nga xamante ni moo leen ko yombal da ngeen ko def gërëm ndax jamono ji moom émergé passif moom émergé ko xaj yooyu xaj kon bu paree kon émergé passé doon naa jukkal mën naa jot di gërëm encore une fois suñu Modou Assou li ci Ousmane lépp ci moom la moom moo baax ndax sëñ Tuubaa defal na ko lépp ndax maam ak sëñ Tuubaa ñu maam moo jaar xorom saakoy maam maam jege jaara maam moo jaar gën jege jaara kon diggante ak sëñ Tuubaa kenn du ko ci diggante kon bu bàyyee lépp di défendre président Ousmane Sonko défendre ko ci moment yu jafe la moment yoo xamante ni moom tudd Ousmane Sonko Touba yomb ndax léegi ànd ak Ousmane Sonko Touba yomb na mais moom bu ñu koy défendre ci ay groupe sax boo défendre président Ousmane Sonko yomb kon sëñ Modou As ñun ñoo la war a sant ñun ñoo la war a gërëm mais du yow yaa ngi war a sant kon ñu ngi lay ñaanal yàlla ci sa barke maam sëñ Touba yaakaar yi nga am ci président Ousmane Sonko jëlee fii ci moom yàlla ko yàlla doon bu ko defee yàlla ko fa yàlla def ndax yaakaar rek nga am moo tax nga ànd ak moom di sant bu baax a baax nag waa CPS département Mbacké encore une fois di leen santaat ndax taxawaay yi ngeen am ci élection locale yi bëggoon naa am occasion bu mel ba sant leen ndax man a nekk ma jàmm ndax da bu dégg def pour ngeen pour ñu faam surtout seen coordinateur boo ñëw ñàkk na campagne législative bi jàll lu ma 4 millions te kenn xamul kon bëgg naa yéen ñëpp sant ma bu baax a baax ak waa CPS département Mbacké comme ni ko Amadou Lo waxee léegi président Ousmane Sonko dafa am yaakaar ci Macky yaakaar joo xamante ni wax dafa métti ma ne dund ko tuuti président Ousmane Sonko dafa am yaakaar ci Macky yaakaar joo xam ne du yaakaar ju daw yaakaar ju mën a mën a mën te loolu Macky ñëw ko ji meeting na dix février bi def si ngeen ci bu baax a baax bu ma ci des waat biñ génnee bureau commissaire Camara ma ne Amadou Lo ma woo président Ousmane Sonko dafa ko contrat ne ko interdit nañ meeting bi waaye ñàkk a Mbacke defar na ci ñun dafa biir politique bi nga ne président Ousmane Sonko bu jëlee si Mbacke li ma leen wax lu am solo la maa ngi ko doon wax ci média président Ousmane Sonko ne ma dinaa ñëw ngir li nga taxaw ci terrain gaar boo xam ne président Ousmane Sonko su ma dinañu Mbacke dinaa ñëw Mbacke ngir sa kàddu moom te président Ousmane Sonko ñu ñëw Mbacke wëris na defar def ci ay yéréen ngir ne conséquence bi nga xamante ni moo ko mën a fekk du ñëw Mbacke ndax musique interdite da ko nekk xam booba yàlla dogal na keroog bi bi bi ñuy avancé moom dina ñëw ba mu ci ñuy biir commissariat Mbàkke bi ñu téye gàddaay bi ngeen am taxawaay bu rafet ba ñu mën ñoo libéré ñu mën fekk bis bi boobu dañ ko fekk mu dem ay demande siyaari seen bis ñu génnee woo ma dama doon bi muy ñëw moo des dafa ngeen buñ ko waa jiit mën a ànd moom yóbbu ko ba jàpp bi ñu ko jàpp kenn gënoon programme mais résistance bu waa Mbàkke résisté moo tax keroog waa jiit ñëw ñu ko jàpp mais keroog indi nañ camion bi war a jàpp ak gendarmerie bi war a jàpp pour yóbbu ko Dakar keroog pare woon nañ ko tànn ko fii di baax. Ah, kon projet bi doo leen ci mën ak tuuri mais caay ngeen caay. waaw. projet Pastef département Mbacké bi ci mën ak tuuri caay la ci ñun nag waa Pastef duñ benn politique bu kenn maanaam duñ politique ba yóbbu nit def leen waa APR daan def jox ko naan bii respecté respecté président Ousmane Sonko considéré bu considéré Mbacké moo tax bi ñu demee assemblée nationale dépassé am 26 députés man mii jógee ci département Mbacké ma ne def vice président groupe parlementaire yi askan comme loolu encore une fois président Ousmane Sonko def moo ko ngir Cheikh Diallo la def moo ko ngir Mbacké la sant mais département Mbacké participé bu participé ci victoire moo tax mu jël ma def vice président groupe parlementaire yi askan donc il faut que ngeen xam président Ousmane Sonko moom fan la teg département Mbacké xam naa su ma ko waxee aadama mën na xaw leer mais leen bëgg na am ñetteel ci département kër kon encore une fois ñu ngi leen di sant di di jukkal di fi am di fi def politique di wax Birame Diouf mi xaw ma kenn Mbacke Birame na ko boo ñu bàyyee sa bopp rek di nga am li fi politique yëpp di am boobu bu ñëwaan Touba def ay visite kenn doon Ousmane Sonko la nga def Biram la nga def Ahmad Lo la nga def Cheikh Soro la nga def tey dem na ba Ousmane Sonko kuy def comme politique ci Touba moom li am ci ay turndoo ginnaaw seen am ak baax amul kenn ku fi am ci Sénégal loolu nag yàlla mu tamal xool mu doo ko war a dégg moo tax nañ séntu Ousmane Sonko am na loolu démb sax mun a asalaamaaleykum nañ ko séntu waaye alhamdulilah bu waa Mbàkke moom buñ ñëwee manifeste ndax koy manipulé mu daan am ay mille voix nga di ko manipulé ba maanaam cent vingt neuf mille voix kon dañuy ñaan yàlla dañ continuer ci manipulation bi kon loolu nañ ci góorgóorlu te loolu per ne waa CPS lii bu nekk rek loo xam ne nii da ngeen ñu jóge fi ngeen fàtte ko ndax ñu am ay électeurs ci Touba manqué nañ ko électeurs ci monde rural kon rikk na ko def comme ni ngeen ko defee nii sur la offensive na ngeen ko def loolu ci département bi yëpp yëpp yëpp yëpp dugg ci commune par commune ndax bu résultat yi wàcc li ñu am ci yenn communes yi loolu honneur wu département Mbacké ndax département Mbacké ANSD recensement bi mujjee def ngeen mooy département bi gën a complet Sénégal te département boobu budget bi mujjee woote man ak honorable député Fallou Mbaye di pété bi département euh, di waa budget bi budget bi ñu prévoir ci département bi mooy bi gën tuuti kon loolu benn commune boo xamante ne Macky Sall war na koo gën ci département wala te loolu nag yéen waa CIPES da ngeen di am liggéey bu mag boo xamante ni ngeen xaar liggéey bi nag liggéey bi nag àndul ak ay xiiroo àndul ak ay ñaayoo ñetti benn la àndal li ma jàpp mooy dinaa la avance ñetti jëmm jëmm yoo xamante ni buñ leen dee xool ñoom dañuy symboliser projet projet Pastef ñetti jëmm yooyu dañ koy symboliser ci département Mbacké bi ki si jiitu mooy Bada Ndiaye Bada Ndiaye di responsable CPS département Mbacké di responsable CPS commune bu Touba ba na événement mars deux mille vingt et moom lañ njëkk jàpp kër yóbbu ba am daan loolu ba na événement yi moom lañ fekk ak kër bu yóbbu ba te ba mbaa raay bi ñu jub moom fàttali na sax prison la rek kon jëmmu doon képp ku tudd boo toogee fii di ñu ko rendre avance ak jëmmu di ñu Bamba Cissé barki dem seet naa ko prison ko seetee li ko wax dégg na ko ndax bu leen jum ndax ñu nekk ci prison yi ñëpp moo matal def jarawat ndax sacrifice yi ñu def a baax def moom la ñun ñëpp def mais ñoom dañ jarawati kon ñooñu il faut que ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax Ibrahima Gueye nay leer du ma ko fàtte ñi nga xamante ni Abdou Seye moom dama ko jël kon ñun ñi nekk ci biti war nañoo mën a gën a góorgóorlu ba honoré ñooñu fi taxawoon ak fi ñu bëgg a passé dafa dañu fa passé bokkuma nag ci ñu naan Pastef wax naa Sénégal yi dañoo war Ousmane Sonko man contrairement laa jàpp Sénégal yi def nañ ba defoon Ousmane Sonko loo xam ne bu doon ëpp mën a ëpp la Sénégal yi def nañ ba defoon Ousmane Sonko loo xam ne bu doon ëpp mën a ëpp la ndax Ousmane Sonko moo fi teg ab offre politique Sénégal yi defal nga offre boobu ba jaral leen ñàkk seen bakkan ñaari Sénégal yi ñoo faa dem di poche Ousmane Sonko ñaari Sénégal yi ñoo dem kaso di poche Ousmane Sonko kon dañ leen di wax rek ne yaakaar ñu ngi amul Ousmane Sonko trois mois moo des trois mois yi moom mu soññ waa Touba waa Touba xam nañu waa des te dinañ bàyyi Macky Sall moom li wér bu wér mooy du am cinq pour cent Touba loolu moom mën naa ko wàcc yàlla ak ànd ak moom waaw kon li nga xamante ni moom laay soññ mooy département Mbacké ñu fas yéenee fal Ousmane Sonko na Sénégal yëpp jël royukaay ci département Mbacké nga xam ne moom as conseil yi ñu wax dégg nañ Macky Sall malheureusement xamul ñu muy xeexal comme waxee Barthélémy Dias wax na ko ay tam xamuñ li a wax Macky Sall loolu la ko ci projet Pastef xamuñ li nga xeexaat ndax mbir boo ko yëkkatee ne di lii ko rey trois cent nga nekk ci ba mbir mi def trois mois boo gëmee yàlla xam ne mënoo ci dara nga bàyyi dem seet leneen Macky Sall ni ma ko waxee woon lu mu mënul ci jumaay ci waaj mu mënul ci jumaay ci waaj mënu ko ci présidence ba ñoom sama benn waajur dafa ne woon ñaar la étape ñett la étape man ci yow benn mu jàpp la mu te mu nekk moom alhamdulilah heure bu xëyee bala mu recevoir kenn alhamdulilah daal wax ak alxuraan tey jii boo ko fekkee ca kaso dem naa ba war a dugg ñu ne ma permis bi ma yor maa xam daal leen nañ ko récupéré waat defaraat la yeneen permis kon ñoom ragal bu ñu ragal département Mbacké loolu dañuy feeñ ndax Ousmane Sonko bi muy recevoir waa parti bokk naa ci trois personnes yi njëkkoon a visé ngir xam département Mbacké enjeu bu ci électoral mais ba ak ku leen rey la yemal na mu doon ay conseils yu njëkkal mais dama lay wax rek waa département Mbacké war ngeen gën a féeraat seen bopp da ngeen ci ab keroog bu am solo te xam ne bu soobee yàlla suñu borom yaakaar bi ngeen amoon ci Ousmane Sonko ba tax ngeen porté ba tax tey jii boo demee ci kaso Ndakaar ba ci Ziguinchor am na ñoo xam ne ñoo ci passé ci département Kédougou ba Ziguinchor am na ñu nekk ci kaso Ziguinchor ñoo xam ne tuwaay nit ak mbaak kaso Diourbel boo eggee am na ñoo xam ne tuwaay nit ak mbaak boo eggee Thiès barki dem am na ku ma woo téléphone nee naa suñu fàll ñu ngi def saam ñu ngi ci kaso bu Thiès kaso Sénégal yëpp ku ñu fa jàpp ci projet passé da nga xam ne ku dëkk tuwaay ak mbaak nii loolu nag ku xam yoonu murid édiwone si lan mooy yoonu murid dëgg-dëgg bu ñu njëkkatee combat boo xamante ne lu toll lu lu xeetoo bañ man lu des ci ay mën la bett xamuñu ko xamuñu woon mën ndax na ñoo xamante ni njaayum bëccëg moo leen fi indi bëccëg nga bëccëg mooy njaayum tukulóor yooyu joxe bëccëg di seen desara moo leen indi Tuubaa xamul dara Tuubaa mais ku xam Tuubaa xam si yoonu nga xam ne bu ñu njëkkatee combat boo xam ak bañ moo ci nekk ñu adhéré bu ñu adhéré suñu ko nekk wax lañ wax dañ ko wax ba sëñ ba ba sëñ bam da ngay moo gën a yomb nga wax noonu làkk ñun waa Touba li ñu mooy ba Ousmane Sonko bala gën a yomb mais ñu Touba dañ jóg ñu ko pare nañ kon ñu ngi santaat bu a baax a baax a baax suñu yi nga xamante ne dañoo nekk contrairement Ousmane Sonko képp kuy kilifa diine fii ci da koy sax dañ ko bëgg am na barki dem rek gis naa ko na solo barki dem rek naa ko léegi li a leer foofu mooy képp ku dëkk Touba ak Mbacke ñu problème ndax mu jógee ab sëriñ mooy sëriñ kon ñun fépp wala ñu fay waxee diine loolu dañ ko fekkee te bu mu mënee jàmbaar la ko koy def ñu ndax daan na daan na ko bokk ci sëñ moo ñu gën a fukki junni Ousmane Sonko am lu bokk ci moom laa moo ñu gën a fukki junni Ousmane Sonko am lu bokk ci moom lu koy kon ñun li ñuy def muy politique ak li ñu dañ ko ràññee de bu baax baax a baax baax mais nag boo mu boo sëñ Tuubaa ñu xaalis nga gën dal ci ba dañu ne toll loolu buñ ko gaawal kon ñun ay murit lañ doon te ay murit moom lañ fas yéene doon ba at lay tukki mais nag dañoo assumer suñuy responsabilité ne Ousmane Sonko dañ ànd ak dañ ko assumer ànd wax ñi nga xam ne dañoo ànd ak Macky Sall dañ mais buñ làqatu ci ginnaaw kenn naan ñu benn waay waxoon ndokki dem sëñ Moustapha Diouf laa da xeer wu ngande ñoo taxaw ci ginnaaw sëñ Mountakha boo fayee xeer mu laajte ko sëñ Mountakha loolu lañ ko arrêté sëñ Mountakha ñoo leen ko gën a bëgg fuuf liggéey Touba Ca Kanam li bokk passé di ci participé boo ko génnee Touba Ca Kanam du amati université bi li bokk passé participé boo ko génnee université bu taaw bokk passé di ngeen xalkom boo ko génnee xalkom du amati ndax passé université la université boo xam ne murit ñoo ko porté man mii ci diaspora bi xam naa mouridisme lan la nekk ci projet passé bu sëñ Mountakha tey taxawoon ne képp yaakaar sëñ Touba da nga bàyyi Ousmane Sonko li Cheikh Mamadou Mountakha ne woon ku yaakaar ku yaakaar Serigne Touba bu mu wootee Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu présenté woo ci élection présidentielle 2024 am 5 pour cent bu boobaa man Cheikh Thioro si ñu koy njëkk a bàyyi ci laa bokk ñuy battre campagne bi ñu ko wootee ci laa bokk kon ñun Serigne Touba lañ bëgg moom lañ yaakaar moom lañ yaakaar fii ak fan jëm mais xam nañ ne Serigne Mountakha homme politique yi fi nekk bu doon joxe kenn pour ñu wootee Ousmane Sonko lay nekk ndax indiwoon na si maa indiwoon li ma am indi woon ne moom lii moo ko tax a jóg lii lay défendre pour réew mi moom ba tax Ousmane Sonko ci loolu lay xëy ci leen wax kon sëñ Mountakha ñu gën a tege ci homme politique jàpp na Ousmane Sonko te bañ na balaa Ousmane Sonko sama doomu xol la sëñ Mountakha moo wax ne Ousmane Sonko doomu xol la lu mbir yi tàngee dama koo digal mu def kon maa ngi ñaan yàlla li nga xamante ni may na ma comme respect maa ngi ñaan yàlla mu dajale digal loolu te gëm naa ne sëñ Mountakha ñaan nguur dana président Ousmane Sonko kon ñu jéem a jàppalise sëñ Mountakha Ousmane Sonko jéem a jàppale si yoonu Mountakha Ousmane Sonko loolu pen perte na comme ni si nga si nga waxee rek si laay daaneel sama kàddu mooy journal Canal enchaîné loolu ñu bind jëmale ko ci yoonu murid loolu képp ku yaakaar sëñ Tuubaa da koy ñaaw moo tax ñun ñaawlu nañ ko yéemuñ ci ñaawlu ko mais si siir nañ képp koo xamante ni am na kàddu pour nañ ci wax ndax du mbir moo xamante ni mbir mu naaw la mbir mu rëy rëy rëy rëy la ndax wax naa ko waxati ko mën naa jur tëj yi ba kër sëñ Tuubaa yi nekk bitim réew ñu tëj ko ngir accusation yooyu ndax ku ci nekk xam na monde musulman bi tey ñu leen diaboliser su su suñu mbokk frères musulman yi ndax ñoom ñooy seen parti politique boo xamante ni dañoo assumer seen responsabilité ne héroïsme l'islam ni bëgg ay élection lu mu isib dem ay élection dañu ko 63 pour cent Mohamed Morsi gañe tubaab yi ne képp ku bokkoon ci parti bi dañ lay traqué jàpp ñeneen ñi tëj jàpp ñeneen ne Qatar yaa nekk ci ginnaaw bi dañ leen dañ leen dañ leen financé mais tey jii Qatar mi doon financé frères musulmans yi Qatar moo nekk ci ginnaaw day xeex ngóor jigéen effectivement Ousmane Sonko d' accord jigéen bu ko man maa taxaw ne Ba bu ne ma candidat franc-maçon ma ma ànd ak moom man taxaw ne Amadou Ba bu ne bu ma toogee ma ànd moom du wax ndax ñun ñoo ko loolu mooy nag benn débat nañ wax ne Amadou Ba lan mooy position ci góor jigéen nañ wax Amadou Ba lan mooy position ci criminalisation góor jigéen na ko wax mu leer du ko wax Amadou Ba du ko wax Khalifa Sall du ko wax Idrissa Seck du ko wax kon képp kuy jullit di wër yaakaar wax na ci position bu daal nga di ko xeex barki Alxuraan Karim boo doo wër doo jullit ndax mun nga xëccoog candidat yoo xamante ni waxoon ci leer ci góor jigéen waxoon lu leer ci franc-maçon yow nga ànd ak ñoom di xeex koo xam ne fenn bu toogee day criminal si góor jigéen day xeex franc yi nga def xeex yow naa fekk nga waxtaan loolu dañ ne naa jël nañ position te ànd ak Ousmane Sonko bu gënee bakkan yi dinañ wax joxe ndax xam nañ lan la indi pour Sénégal te gone yi nga xamante ni ñu ñàkk seen bakkan ci a bëri moo tax ma dem loolu lañ góorgóorlu wax nañ ko gën a ma ne la lay góorgóorlu war ngeen ko gën a yokk bu ma leen waxee nag war ngeen xam tax wax leen kon maa ngi sant waa département Mbacké yëpp di gërëm ñëpp am di Moustapha ni ko waxee léegi am di Moustapha di coono yi bëri bëri rek la si mun a xaar am di Moustapha rek la si mun a xaar loolu il faut que ngeen xam am di Moustapha moom si mun a xaar ñoo bokk bàyyi am di Moustapha c'est pas n'importe qui kon ñi wër di wax naan am di Moustapha ab waxaat bi si ab salafis la am di Moustapha bu def salafis sëñ Moustapha mooy salafis bu mag am si waat rek gën a gëm sëñ Tuubaa ñëwul ci kaw si a gëm sëñ Tuubaa ñëwul ci kaw bu demee Turquie ànduma si waat moo nekk ab bëkk néegam ko jëndal ay barax si waat yoonu murid na ci teg am nañ ci droit mais nag ko nag di si waat la ñun ñëpp ay man yàlla naa nekk salafiste ba ànduma si waat doon war nañ bàyyi seen caaxaan am nañ droit maanaam ngir ragal nguur am nañ droit maanaam ngir ay passeport diplomate am nañ droit maanaam ngir àll bi leen jox mais amuñ ci tubaab di ko fenal war nañ bàyyi seen caaxaan ñun gënuñoo gëm seen tubaab gënuñu koo yaakaar gënuñu koo wóor gënuñoo bokk ci dëkk bi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu ma guddee mën naa wax ba xaw loo xam ne bugguma ko war a wax mais daal li wóor ba wóor mooy Ousmane Sonko 2024 yàlla suñu borom rek moo ko mën a tere dugg baax candidature Ousmane Sonko boobu daal leen seen xel danañ leen seen xel bu baax a baax a baax a baax bu yàlla defee jàmm yàlla moom kenn mënut a xëccoo moom te ñun duñ nekk ci place yàlla ndax duñ ay buxaabakat duñ waaye rafet nañ njort ci ne dina dem te dinañ ko validé incha allah rabbi ñu ànd ak moom pàcc campagne mu génn kër soo dem pare incha allah jërëjëf honorable député sëriñ Cheikh Karam Baté sëriñ Sidi Mbacke ah. waaw léegi waaw léegi xanaa rek may may profité wax di nuyu Serigne Sidi Mbacke bi nga xamante ni moom sëñ Mor Assou moo ànd ñëw fii Serigne Sidi Mbacke bi daal ñu ngi lay nuyu di la sant di la masawu ci déplacement ndax jotaay bi yàgg na mais ànd ak sëñ Mor Assou toog fekk ko jeex tàkk encore naa ñëw mais yaram moo ko may pour mu mën a ñëw ko ànd ak ak sëñ Modou Ndiaye kay tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërëjëf coordinateur